sama mbokk internet yi maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen bëgge di leen kontaane di ama di leen kontaane tey jii nag ñu ñëw si seen émission xëy bañ a toog xëy bañ a toog nag di émission boo xam ne ne dañ ko jaglelee ñii di jeune talent yi tey jii ñu ñëwoon fii di Kër Massar seeti tailleur ku ne tailleur nag sa xel yi dina dem si événement bi ñuy jublu si mooy di tabaski ñuy ñëw nag di xool euh, tailleur yi nu ñuy dundeek tabaski bi ak ñu bàyyiwuñu kenn fu waaye nekk nag dina ñëw seet si la muy di jaaykat xar yi jaaykat euh, dàll yi tissu yi ñoom ñëpp dinañ ñëw seet si leen incha allah ñu bàyyi si xel tey ñu ñëw fii si Kër Massar di xool si jeune tailleur yi ñu ñëwoon di leen seet si di nuyu nag kii di tailleur bi ñu fi fekk di koy nuyu salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah soxna si donc lay nuyu di la fay. tur bi. Serigne Massamba Ngom. sëñ Massamba ñoo ngi lay nuyu di amaan mbégte di la dalal si suñu émission xëy ba ñu toog fii si seen télévision la chaîne Kifne TV ñu lay nuyu di la ziar di la naan rek noo dundee tabaski bi. waaw xanaa di sant yàlla bu baax a baax a baax a baax ci euh, tawféex bi nga xamante ni tawféexal nañu ko euh, ñu fekke ko tatal ko ndax euh, képp kuy ñaan da ngay ñaan fekke tatal te fekke nañ ko ñoo ngi ñaan yàlla suñu borom ñu tal ko. ñong koy dundu ci banex ñong koy dundu ci yeg yeg soxna si jërëjëf tay ji señ bi tabaski bi mo mu ak li du ñi feebar bi di mbass bi moy coronavirus bi ñu bëggoon na xam nag euh, nu koy dundé ak euh, par rapport ak tabaski bi ren ak bu daaw bi no koy dundé ba xam ñaw yeg ñew wala waaw mom mom non ni ni ni ko doon dundé rek lañ koy dundé ba tay gannaaw ñoo ñu wër ta fekk ko tatal ko loolu rek moo mat a ñaan ndax tawat bi moom ak tawat la rek eh, waaye ni ñu ko daan dundee ñoo ngi koy dundee noonu kenn ko ci nekk lay sa wërsëg da nga ko jot te suñu borom lam la sédd yaakaar naa ni di ko jot jot gu wér kon nag lañu daan dundee daaw moom la ñuy dundee ren ji ba tey incha allahu taala. Mm-hmm. jërëjëf jërëjëf tey jii nag uh, ñuy gis ne ne tey jii ñëw nañ ci fekk uh, ngay ñaw am ñu ñu buggoon a laaj rek si yan xeeti ñaw rek uh, ngay faral di ñaw. của ờ, nó sana ada mah, ngam. xeetu ñaw yi nga xayti ñoo ngi koy ñaw fii ci barab bi Bichri rikuti sant Serigne saliw fii ñaw baylat dañ fii ñaw xaftaan dañ fii ñaw turki njaareem turki dara garam bubu ak xeetu yenn yi soxna yi nga xayte ni islam sopp na ko dinañ ko fi faral di ñaw ci kàttan yi jafe-jafe yi ñu ciy jànkonteel mooy xanaa kenn ku ci nekk ñàkk doylu rek waaye nun de fii ñu toog nii ñoo ngi sant borom bi bu baax a baax a baax a baax a ñu toog soxna si tedd tey jii boo doon jox conseil ak sa mbokki tailleur yi loo leen di jox. waaw mooy kenn ku ci nekk mu mu doyloo wërsëg bi ko suñu borom xéewale rek xam ni kat liggéey bi mooy yaatu yaatuwaay goo xayete ni kenn ku ci nekk lii sa wàll suñu borom déelal na la ko incha allahu taala ala kulli haal ko jot ndax métier bi mooy yaatu nit ñi clients yi kenn moomu leen kenn ku ci nekk la ko doy rek ak kon daanaka métier moom mooy yaatoo noo xayete ni métier am téyéer yaatu nu yaatuwaay boo xayete ni kenn ku ci nekk bo jappé nah, ni ki ngay ñawal sax ané rek da ngay nax sa bop mo waral sa su ne da ngay gis ki di méré ki ki di méré ki te da ko jarul ndax nit ñi ñoo jëmul fenn kon yow fexé la jëm fenn rek yow mi téer bi mu melni ay yéré goor lañ fay gis yu bari bari ndax di nga faral di ñaw yéré jigéen wa yéré jigéen diñ koy fa nañ koy faral di ñaw waaw danañ koy ñaw ñaw gu wér tay ji ko la bëggona sét nan lay def ba ñaw ci yow wa fi Kër sar boulangerie 2000 en face unité 15. unité 12. ci arrêt bi bu la boulangerie 2000 Kër Massar. waaw. lan jox euh, mbokki internet yi ak si feebar bii di coronavirus. waaw xanaa comme ni ko euh, gaañ yi di waxe rek ci tawat jooju ñuy wax. Eh, kenn ku ci nekk li nga xamante ni eh, ñi yor wàll woowee noonu digle nañ ko muy wattandiku ci lépp loo xamante ni eh, dana indi tawat ji mën a yaatu kenn ko ci nekk mu wattandikoo te it ñu xam ne lenn lu jóge rek suñu borom la nit dara du ko dal te soobul suñu borom kenn ku ci nekk it bàyyi xel bu baax a baax a baax te bañ a dawante te bañ a def loo def loo xamante ni lépp loo xamante ni nit ki doomu aadama suñu borom moo ko fonk fonk ñu ni bég nañ bu baax ci teewaay gi nga xëyte ni teew ngeen ko ci jotaay bi ñoo ngi ñaan site bi yàlla na bokk ci site yi nga xëyte ni euh, Kifne TV yàlla na suñu borom yaatal ko euh, mu raw seen mboolem seen télé yi Kifne TV ñoo ngi ñaan suñu borom euh, defal ñu tawféex numéro téléphone bi 965 50 28 965 50 28 sëñ Massa Ngom fii ci atelier Bichri Couture sant Serigne Saliou Mbacke borom njurul borom xabbaan borom daaree ñaaru borom géejaan wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. jërëjëf sama sama ñoo ngi lay jaajëfal si teewlu bi ñu bi ñu teewlu woon incha allah di ñaan yàlla yàlla yokk xéewal gi rek. prévention comme ni ñu ko waxee woon rek ñu seet am keneen ku ñu xoolaat rek si tailleur bi ñu koy dalal di ko naan salaamaaleykum. waaleykum salaam. sëñ bi tur beeg sant man Aliou Diop laa tudd ñu fekk la ngay dagg ñu bëggoon a xam rek lan ngay na lu baax parce macha eh, eh, ah, kan, eh, hmm. allah xëy na problème ndax corona bi juste ci correcte di liggéey bu dara mais actuellement ak bi vraiment liggéey ñu ñu ñëw par allah mel na comme année yi passé wala mën na am moo tax ñu am yaakaar vraiment ci tabaski bi gën a dina gën a dox. waaw incha allah ñëw yaa ngi ñëw bu baax na. yéen ñëw ngay faral di macha allah yàlla dimbali nañu ñu euh, boo xam yoo xam ni dañuy naan lii ñëw du ñëw li des. Mhm. yàlla def na dañuy ñëw ñëw góor dañuy ñëw ñëw jigéen wax dëgg yàlla. Mhm. waaw franchement. Mhm. dañuy ñëw ñëw góor di ñëw bi. looy wax ak sa mbokk waaw juste rek ñu ñu ñu moytu vraiment. Mm-hmm. Euh, def euh, li nga xam ne moom mooy euh, liñ leen sant. Mm-hmm. ci seen barrières yi ñu éviter bu baax a baax a baax vraiment parce que tam feebar la boo xamee ni ñu bari ñu ngi koy ñu ngi koy wax ñii ñu ngi koy gëm ñii gëmuñu ko mais lu mën am mooy moytu. parce que nit moom li am solo ci moom mooy muy set. Mm-hmm. di def li nga xam ne nii moom mooy yëfu nit. yëf nit nag yaakaar naa boo di nga moytu lu bare bare nga xamni ni li ñuy wax feebar yi do yalla mëna ñu dimbali ñu ñu ñu muccu ci daal wax dëgg yalla ñun moom ñu ngi def lu ñu mën pour moytu feebar do wax yalla yàlla bi mu corona ñu waaw euh, juste ci événement wu Korité yi moom loolu amoon na parce que man amoon na ñoo xam dama leen waxoon ñu toog. Mhm. parce que mënuñu ñëwandoo ñëw ñëpp mais actuellement moom wax dëgg yàlla dañu soxla équipe. Mhm. comme dañu soxla équipe nag ñëpp dañuy liggéey si incha allah mhm. ñëpp a ngi ñëw. ñëpp a ngi liggéey si ah. vraiment dañuy moytu rek mais ñëpp a ngi liggéey si waaw. léegi si matière ñëw bi yan jafe-jafe ngeen di jàppanteel. waaw juste nag xam nga ñaw moom. ñun euh, si euh, secteur informel. secteur la bu doy waa mm. fii au Sénégal parce que amuñu vraiment benn aide mm. amuñu benn aide mm. eh, ñun ñooy demal suñu bopp ñun ñooy eh, jël suñuy apprenti ñoo leen di jàngal ñoo leen ñooy def ci ñoom lépp waaw ah, am vraiment bu dee ci côté jàppale daal parce que jàppale boo ko waxee état lañu yaakaar ni moo ñu war a jàppale mais ak jàppale état moom vraiment gisuñu suñu ñëw bu fekkee da nga jógee côté ville wàcc ci eh, wax dëgg yàlla. fu mel ni autoroute à péage bi da ngay wax ni da nga ñëw station Kër Massar jël oto yi nga xam ne ñoom ñooy ñëw boulangerie Derby boo rek man maa ngi foofu sama numéro téléphone 77 la 436 400 77 436 32 39 moom mooy sama numéro téléphone. yan conseil ngay jox mbokk yi si faire? waaw conseil euh, mooy li may jox sama bopp rek mooy li ma waxoon sànq. mooy comme ñu éviter vraiment yenn yenn détails yi ñu éviter ko waaw moytu bon sore yoo comme ni ñu digalee li mm-hmm. ñu digal daal bu ñu ko defee man je pense que lu bari dina dina wàññeeku feebar loolu daal laay digle waaw sëñ Fallou waa technique yi ñoo ngi lay jaajëfal. merci merci beaucoup man aussi maa ngi leen di jaajëfal mm-hmm. vraiment may ngeen ma opportunité bi ma ma ma wax samay euh, li nga xam ne moo nekk ci man vraiment maa ngi leen ci gërëm di leen sant bu baax a baax a baax merci beaucoup. Mm-hmm. voilà nii rek lay demee si la. televizyon ang Tiffany TV. Si Benenta yan natin siya ay... Bata ninyo asisen emisyon. Okay ba nyo tong ninyo asiswatan benensyon tala. Ninyo adi ko niya. Assalamualaikum. Ada sendi. Ang siyam. Tulwet sang tabi. Dalasol. Niya po hamdan na niyong si Wachari tabaski ninyo wadat ko pamnoy din dek tabaski ano kay wajan. Oh, sant yàlla comme ni ñu koy def dëgg yàlla mbas yi moom si torité bi waaye aussi moom sant nañu yàlla baax yaa yaa ngi ñëw te di seen seen bopp ndax tabaski ren bi ute naag bu daaw. waaw bu

ay cee complet lañ. cee complet mooy bu bàyyiwul dara. ñooy ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom lépp daal client yi bëgg daal. ko satisfaire bu mu ñëwaat daal bu mu koy ñëwaat. daal di sant yàlla. nag ñaar di tax ci liggéey moom si nga xam ne ay problème. mais ñun moom wax dëgg yàlla lu ñëw rek a ngi ñaw rek bañ di jël ñaw yu bari ba xam ne ñu di ñëw di seen ñaw yi di pare ñu seen ñaw di ñu pare mbaa yéen ngi koy évité bu baax. waaw loolu moom damay jàng météo ba tey sax semence bi gën-gën बस गाँव और भी जगह bisa nyawa, नहीं तो bisa nyawa nggak, kalau जो से निकाल और आगे जो से निकाल और Kita basi kuenda fera Dubai boko so. Wow, mana kita basi di torna kita. Awalnya lebih cepat ini, wani mulai. Lebih cepat mulai, kamu juga anggun. Jangan kena kalau apa sih tu. Jadi baru kita masih bah. balik lagi ya. Jadi kayak mau ni lah, lah, nggak apa dan mau lah nak Jadi kayak nyanyi nyanyi mau sudah mulai mau itu. Dan jam apa lagi ada jam apa yang nyaman. Ini yang jam dan punya cara Ia kau pada warak sila jaya Kalau khas jalan kejelah menolong yang masih menurah. man ñibbi ak sama kër 2500 te moom gënoon di taxaw di ma yóbbu kon di te dañ ko bopp ñu jël duñu mën a ñaw jël loo xamante ne daal wax dëgg yàlla du leen indi benn problème client bi ñëwee jox ko ñoom waaw ñu am jàmm client bi am jàmm waaw noonu noppalu moo gën nga toog si nit ñi ñu lay wax loo xamante ne si yu kanamu darba si say kanamu jib am ñoo xam ne amuñu dal boo posé seen programme rek dañuy kepenilaiannya ada tipe baya yang bisa buat. Jadi wah nanti muncul di mana nyau. Sama kahai semua mono mono koli gaya coba sih mereka ambil. Aku itu coba kuasa itu tipe berapa. Jadi kaget dari sini. Jadi aku bukan nanya sesi kalau nala refleks. Wow wow wow min mamum. Kita itu ala jadi cuma saat tekan sekolah saja di kalau naik kalau naik ini. le jox sama numéro rek 77 980 64 980 64 bàyyiwul dara lépp la ñuy ñaw yére góor yére jigéen waaw lépp lu ñu bëgg rek waaw bu ñëwee dina ko satisfaire ba mu mën a liggéeyam beneen yoon daal jërëjëf Bada waa Tekno TV ñoo ngi lay jaajëfal. waaw ñu ngi leen di jaajëfal bu baax ñu ngi rafetlu tamit seen taxawaay. yéen a ngi jàppale ñu si banlieue parce que banlieue bi moom ñun dañoo làqu trop bon ñu mel ni bu amee tamit ñu ngi siy sant yàlla di leen ñaanal tamit jàpp si kanam bu baax a baax di rafet bu baax yow moom sama jigéen nga xam naa la bu baax a baax yàlla di leen ñaanal ñëpp. sœur bu la lenn dal waaye ñu ñëwaat ba tey rek ak sunu beneen mbokk tey rek ñu ñëwoon di ko ziar salaamaaleykum mbokk mi. maaleykum salaam. noo ñu ngi sant yàlla bu baax. tur sant bi. Babacar Ngom. Babacar Mbow nooy dund ak événement bi. waaw ah, événement bi ni mu doon demee moom daanaka demeetu ko léegi. boo mhm. doon am fukk tamit ñaar ngay am rek. di séntu xanaa sant yàlla rek. Mhm. di yokk xéewal. bu ñu doon ñëwee moom mhm. ñëweetu ko moom. daagaa ñu ngi furaatu ñu sant yàlla rek. mais lépp yàlla lenk nañ ko delloo yàlla daal. waaw loolu la. waaw ñu gis yenn tailleur yi di doon wàññi foog bokkoo si waaw man nag dama nekk koo xam ne ma nekkee Babacar ba léegi sama apprenti bi ma toll nii. Euh, daaw ma passé ñaari apprenti mhm. instant yi bu ñuy màggee man ber naa ñaar du ma ko passé mhm. apprenti bëri moom bëriwul lu ma ko yore mhm. ñaar laa yore ku mun ñëw ak ku munul ñëw ndax man en général may ñëw sama bopp may def lépp may daamine may def may ñëw sama bopp waaw mais apprenti yu bëri moom wax dëgg yàlla euh, yoruma ko ñu bëri daal ñaar daal laa yore euh, ñoo nekk si atelier bi waaw bu heure jotee ñu wàcc 6 heures du matin laay xëy su may ñëw ba 2 heures ma julli tëdd noppaloo ko ba ma gontu 23 heures man duma fanan mom naka jik lu ñaw bari bari man duma fanan li may jël la mëna ñaw lu ma ñaw duma ko jël rusé wu mako ko si kenn waaw ndax bo jël loo ëpp lolu tamit dañ lay indi problème waaw te ñu ne la la sama ñaw nangam nangam mais bo topé xaas bi da ngay dem ba ci bi ñu yàb la si te du am njëriñ te jëru ko dal waaw jëlal li nga mëna ñaw rek lu mëntu ñaw ko fu mëna bay nga bay ko mënu bay nga yobu benen té waaw ya ñaw ngeen faral di ñaw fi man en général mom ñaw jigen dama koy ñaw waye duma ko exposé ñaw goor da lay ñaw mhm. pantalon costume près de corps trois pièces ak deux pièces lay ñëwal ay près de corps moom lay ñëw tey di boo leen jox sa mbokk si yang conseil nga leen koy nga koy jox ah ñu sant yàlla rek jël li ñu mën a ñëw rek dayloo yàlla lay ñëw daal lu ñëw daal ñëw na nañ ko jàppee ni mu ñëwee képp def tam muy di atelier yi di place defal nga mën ah ñeneen ñi tamit kan ku konek daal yaa xam loo lo loo loo xam ne attanoo ko daal bu ko def mais loo xam ne daal def ko loo mun tam nga def ko loo mënul bàyyi foofu. Mhm. bul tam bëgg kenn am na lii naa def lii noonu non defal li nga xam ne mooy may mhm. nga def ko. Mhm. lu am daal nga xam ne loolu la lu nga jàppee ko ni ko yàlla indee ñu jàppee ko noonu. waaw. Hmm. tey jii ku bëggoon a dangay ñëw unité arrêt 54. boo laajtee atelier Babacar Ngom. moom la ko won 15 bi waaye 12 bi laa 13 ñëwee daal waaw. looy tàggatoo sa benn waaw tàggatoo xanaa sant leen gërëm leen ah ak mbett mi ngeen ma bett parce que bu ma sax ñoo xamoon na yéen a ngi ñëw demee solo beneen solo hmm. waaye nag comme ñëwee ngeen ni ni ngeen ma fekkee rek laa mën a hmm. préparé hmm. waaye di leen sant di leen gërëm ah fi ngeen jëm yéen a ko xam yàlla na yàlla taxaw yéen li ngeen bëgg yëpp ak dox bi ngeen yàlla na ko yàlla fay mbas mi nga xam ne moo fi nekk yàlla na ko fi yàlla jële mu yàlla fu ñu jële kenn mënu ko fi jële waaw yàlla na ko fi yàlla jële si barke Sëñ Tuubaa Mbàkke am mboole ñu fekk mboole mi jullit si barke Sëñ Naam waaw ay ca ñoom la ñu jaajëfal lii lañ leen seen bopp internet yi di baaxoo di seetaan seen télévision Kifne TV ni lañ koy defee beneen bés rek saa su a nekk rek moo di jaaykatu xaar bi tailleur bi jaaykatu dàll yeeg tissu yi bàyyi bàyyiwuñu ba si messe yi incha allah dina ñëw tàllal la seen micro wax la nooy dundee événement bi nga leen di jox dëgg la ba beneen yoon I